tey ci altiné bi ci xëtu wu wi l'observateur mbirum Adji son Sonko audition du leader de Pastef la fuite et le gros malaise dans la police muy këyit bi waroon yam ci bir police te mu génn ci mbedd bi ñëpp jot ci note bobu ñu ko destiné won commandant yi euh, kon ñëpp jot ci niñ ko waxé commissaire Keita dafa japp ni Sénégal mingi ngi ci guuta ci danger la nek ndax li ñu ku jamono ji euh, ci sen yi euh, ci force de défense et de sécurité yi ku tour bi tamit manam deret la tak ndax ay xeexoo yu fële ca Cikki nekk ca département bu Mbour euh, ci li doon waxtaanee sànq euh, muy euh, douane bu Sénégal ak juróom-benn fukki junni kilogramme maanaam juróom-benn fukk ci ay tonnes ci drogue bi ñu jàpp ci ñetti at boo koy xayma mi ngi toll ci ñaari téeméer ak juróom fukki milliards ci suñu xaalis ñu nettali ten itam li ñu jàpp fële ci Kidira muy 300 kilogrammes de cocaïne bi ñi ngi ci teg loxo ñoom ñëpp ak sineebar boobu kan lañ ko waroon jox mi ngi ci page 7 bu journal bi euh, hausse des prix de la production industrielle la crise ukrainienne état bi euh, jamono ji ci euh, pression inflationniste Madame lepp di transport aérien Air Sénégal l'avion flambant neuf cloué au sol Madame ab avion bu bees mi ngi ci souci l'observateur buteur pour sa première titularisation cette saison Bamba djeng résurrection Madame dafa melni Jeux olympiques de la jeunesse yi tamit 2026 euh, tamit l'observateur ñëw na ci ñu dem apulay ci record ak limu xeyé tay euh, ci altiné bi ci xëtu wu wi Sadio Mané ngeen gis un but et deux passes contre Mayence 6-2 mi ngi noonu ci page 6 bi le Sadio après le spleen la splendeur euh, Bamba et boulay buteur Mendy et Sabali rejou ci waluma tàggat yaram ba tey Demba Mbaye di sélectionneur yu xalé yi sen at motogul ñaar fukk ak ñett mu ne je ne suis pas du tout satisfait mom néna na dal Ligue 1 3e journée Teungueth FC euh, Caracol Mme mi ngi ci kaw euh, et Pikine suivent Top ci now. Euh, ci wet gi Thomas Bach di président du comité international olympique ci Jeux olympiques de la jeunesse pas de doute Mme amul Kisak, Sénégal dina Noppingir ngir 2026 en route vers Qatar 2022 jour J 20 ni Marcel Waché, ñaar fukki fan kep mo ci des arbitre international défendre nos couleurs comme les lions ni ko gaynde di ci page 4 bu record la nek légui muy ñaari et kon journaux groupe Futur Médias di édité ngeen men ko jënd liir xibaar yooyu dañuy le ci météo express ñu ànd ci ak Oumy Samb